mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen revue d'actu dañ koy daal di tàmbale ak coow li ba tey euh, ci wàllum euh, coronavirus jàppale ni match bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau kenn du ko reporté li ni mel euh, ministre des sports daal dina koy xamle ci déclaration bi nga xam ne. def na ko tey jàkkaarloo nag taskatu xibaar yi di xamle ni jamono gi naam sax bëri na ay manifestations sportives yoo xamante ci àdduna bi ñu ngi koy annulé wala ñu koy reporté waaye Sénégal tollagul fi ni mel muy xamle ni kon jamono gi Sénégal annulé wala mu daal di suspendre ben organisation sportive jàppale ni kon match bi war a dox diggante Sénégal ak Guinée Bissau mi ngi bokk ci ñetteeli bëccëg éliminatoire CAN 2021 dina am le 28 mars fêter la stade La la Thiès ñu wax ci match bi dox Sénégal ak Guinée-Bissau le 28 mars bi di ñëw fofu ci stade Lat bu Thiès président fédération sénégalaise de football Augustin Senghor ma nga fa woon ngir nemmeeku liggéey bi famu toll daal dinay sax siwolé ni à disposition particulière dinañ ko téy ci buntu stade bi ngir li nga xamanté modi coronavirus duñ ko mëna walanté ci bobu les stade mu xamné ni jamono bi commission médicale bu fédération bi mi ngi liggéey ngir disposition daal ay dispositions yu am solo yo xamanté ci biir stade bu Dior li nga xamanté modi coronavirus nit ñi ñëw di fa anti match bi duñ ko mëna walanté ñu wax ci équipe nationale bu Sénégal Lys n'est qu'attaquant attaquant ci Sheffield United bokku ci Premier League bi nekk na attaquant bo xamanté kon Aliou Cissé mi ngi koy xel mom joueur bi ci bopam fesaloon na bëgg-bëggam Sénégal mu xam ni ba mu xalé da doon wax papam ni mom bëgg na jouer équipe nationale bu Sénégal danaka téléphone Aliou Cissé dong lay xaar li ni mel nak jappalé ni jamono gi mën naa antu ndax Aliou Cissé ma ngay wëyal mission de prospection bi ci réew ngir daal di waxtaan ak bi nationaux yi waaye itam ñi nga xamante bëgg nañu daal di ñëw biir équipe nationale bu Sénégal moom Aliou Cissé ci mission boobu mi ngi waaj a jàkkaarloo la attaquant bi nga xam te moo ganaw bamu defé ñaari wër ci États-Unis ngir waajal combat MMA wam jàppale ni Reug Reug ni na fi nga xamanté moo di mom nak waajal benen combat wam ci walum MMA le 3 avril kon la ko amal di fatali ni kon Reug Reug 14 décembre bi passé fi ci Dakar la dadi am victoire am bu njëkk ci walum MMA mu do won bu kishu euh, fi nga xamanté musée des civilisations noires bu dé ci walum lutte avec frappe aussi ci fatali Reug Reug si saison bi passé ci la daal di Gris 2 bu écurie face wax sa xalat tay liñ doon coupe arabe U20 suñu avons ndaw yi nga dañ leen ci invité woon ñom ñoo daal di trophée bi li ni mel internet yi daal di nañ koy rafetlu di ndaw yi ñu daal di équipe nationale suivi talent euh, fi ci Sénégal ñu dañuy am talent yu parti petite catégorie waye li nga xamanté contrat parfois club yoo xamante eh, kenn du leen xam ba faf ñu daal di réer seeni réew li nu mel nag bëgg nañ fédération bi mu daal di ci taxaw bu baax mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci déglu bi di leen dig daje ba suba incha